jelasin lagi kalian ke Pekom. ولي الله الأغر أمر داك سك الذي مات مجاهدا في سبيل الله وعلى كلمته الطيبة الطاهرة وعلى خلفاء الشيخ التجاني في فوت كلها من بيت تفسير بال سك موغو هيري إلى خليفة تفسير مصطفى نجول فوتا وعلى خلفاء شيرنو مالك سال في دنشادي wa ilaa xulafaayi ceerno mamadou seydou aaw to boynaaji wa xayrihim ka duriyati alaaji amadou mbow fi jagali wa duriyati ali kuja njaay fi lingeer wa المقدمين في كل من كنل ودومغا ودومغات منها دومغا ورو ألفا ودومغا ورو تشيرنو ونباجي نباجي سيول وغيرها مما نبج فيها وكذلك halu seedo sebbe wo caare wo luur wo lugge wo saare mawnde wo ma ila dalika wa kadalika ahlu galoya bokki jawe muumba ɓeyde na jaajɓe gollere mbusooɓe ko ilahlu majarra ونذكر مقدمين كبار للشيخ الحاج عبد الله نص الكبير ومنهم تفردا لا حصرا الحاج بيران شفود نيان رضي الله تعالى عنه فرتسلن كواين داخ نين ام وأولاده الكرام ومنهم الحاج بابكر والحاج سرين والحاج علي بن ين نعم. تغمدهم الله برحمته وأسكنهم فسيح جنانه وأطال عمر ذريتهم ورعاهم برعايته ونصل بذلك إلى ندكمان والحاج باب فاندو سيسي وكل من كان من ذريته أو أحبائه أو أقربائه أو تلاميذه رجالا ونساء كرم الله ثراهم ورعاهم ورعى من بعدهم ذريتهم وكذلك الحاج مورجاني ولي الله الأغر ولا أنسى ليس ليس الطريقة التجانية أسد أسد الله الحاج باب النو مدينة باب النو وكذلك سري مدن جوب وأولاده أولاده الكرام ومنهم الحاج سلي جوب والحاج أمر جوب وسيني جوب وعالي جوب وأخواتي كذلك نذكر أهل النياهن الإخوة الذين أجابوا وباعوا فيه النفوس الغوالي وكذلك الحاج برند كفر والحاج عمر شام كلور سابقا والنهين وسطا وكفر آخرا تغمده الله برحمته ولا أنسى الحاج بابا جي في ديار غراف وسني كلها ومنهم الحاج عمر جي غراف وأخوه الحاج أمدو جيرنيل وأهل مباين ولا أنسى أهل ساوين الذين لقبهم ساو ولا أنسى أهل جوب جوب وأهل اللومين ومنهم موسى لوم وأخوه ثم أذهبوا غربا إلى شام تاتجن حيث مام بابا شام الذي كان أول من أسسها ومن بعده الحاج علي صحنه وأذكر مقدما لنا وهو الحاج بابا جاي مبور وأشيد بأهل كامن والو وما أدريك ما كامن والو بلدة الجد الأكبر الحاج إبراهيم شام الملقب بسرين كلل وهو سليل تشيرنو سامب شام المعلم الأول للدين الإسلامي والشريعة وغيرها من العلوم جد شيخ عمر طال من جهة أمه نعم وكذلك كل المجاهدين في سامبا ساجو التي ينطبق عليها قول والدنا والجو أظلم لولا رمي بشهب النبال أو بارق من يمال يبدو كضوء الهلال نعم أشيد بقوم من جدنا أحمد بكار نيان وهو بحر لا ساحل له ووالد أمهاتنا فاتو أمينة نيان وأمها أمينة غم الذي جاءت من بلدتي ميلك جو في قبيلة السيرير وكذلك أختها أم نيان نعم، وهي والدة أختنا رقية باي وكذلك أختها جت نيان نعم، وهي من كانت عند والدنا الشيخ الهادي بن الحاج عبد الله وهي أم آس جتو وباي جتو وكيف أذكر وأنا لا وأنا لم أذكر فريد زمانه والدنا الحاج بابكر نيس ابن الحاج عبد الله وهو الذي من كان إماما للحاج عبد الله لا يصلي إلا وراءه وكان أمين سره وخيره أي حلاله ومنه من ذلك البقر الذي كان يتجاوز ألف رأس وكان أمينا على ذلك وعلى غيره وكيف لا أتكلم عن من صغره من الإخوان من إخوانه كفخر كفخر الحاج عبد الله فخر الدين وطريقة التجانية الحاج محمد زينب العالم الجهبذ الذي الذي الذي الذي وأذكر كذلك شقيقي والدنا الخليفة وهما أحمد وعلي أمينته نياس وكيف لي وانا على ذكر بعض شفيع البرايا محمد شفيع ابن الحاج عبد الله وإخوته الثلاثة شيخ عمر وأحمد نس و خرج نجاجة وأي باي نجاجة تغمدهم الله برحمته وأصل إلى أعمامنا أي ناس مريم وهادي مريم وعثمان مريم هذه الثلاثة هم ixwatun min ummin wa hiya ummuna maryaama biyaagi amiratu tabaari baynuk fi Casamance ci muqaddam yi ma doon tudd te yoruma këyit bokk na ci sëriñ Laayim Kamara mi nga xam ni doomam mu ngi fi di alaaji Aliyu Kamara ak rakkam mbay kamara Sidy Lamine mii ñu doon woy léegi sëriñ Laayeen kamara moo jël xaram moom yafaloon joxe ko pour mu nekk xarum dëm Sidy Lamine maa ngi leen di fàttali it alaaji baabu gay sant yàlla ca njaxate sëñ laayam kamaray ca njaxate waaye kadalika waaw kadalika alxaaji moxtaar nga xam ne doomam ngi fii ci kër gi dañu bari moo leen jox añ ak reer muy aji kamara e <coughs> maa ngi tuddi kama Kéba Jaañ ca njaañeen ah moo tax ñu bëgg ziyaara bii ñu def ren def nañ ko bu ci tey bokkee su fajar gi muy ñeenti fan ndax waa Fuuta ñoo ko ubbi ñu bari ci waa Ndakaar ak yeneen dëkk fekk si leen ci àjjuma ji ñii ñëw samedi door ñëw xanaa kii kay ku am kii yooyu ñuy ma ci xaw ma nu mu tuddati tàngalam parce que waaw boobu parce que daan na jaay nag xaw ma jaaykat yi ñu sori waaye ala kulli xaal wala wala singom waaw li am solo waaw wala sax bu dee am na ñuy jaay café café gu tàng baax na ci baax waaw kay mooy def nañ ko ren ñeenti fan alxames ajjuma samedi dimanche sama baay ñetti fan la ko daan def ajjuma samedi dimanche yàgg naa wax ne sama baay yi ñu bàyyi ñu ko yokk waaye ñu ko jàmm li ñu ci bëgg mooy altine ba dimanche altine ba dimanche altine ja di ziyaara alaaji Ablaye Niass ay xalifa alaaji talaata jën di ziyaaraab alaaji Babacar ak alaaji Omar ndax ñoom ñaar nekkuñu woon ñaar kenn lañu woon àllarba ja di alaaji amadu ak alaaji Aliou Niass ak alaaji yii ma la wax nag benn bu ci ne dana am liste muqaddam yoo xam ne mën naa nekk fukk mën naa nekk fanweer mën naa nekk juróom fukk ca nam jàppandee ci ñu am ko ñu am liste boobu yëgal ko seen ak njaboot ba njaboot googa mën a ñëw continuer la seen waajur yi nekkoon bés bu ne nag ñooña ñoom la sas ñu moo xam nuñ dajalee ba bés booba ñu yore ko ñi xam ne ñooy joxe ñam yi ñooy def lépp ndaxit it tiyaabu ji mën a dem ci seen waajur ndax dem aljanna texe mooy lan birru yàlla mu ne lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun birru boobu kenn du ko xam te doxoon na dafa jël li mu gën a bëgg te xaw ma sénégalais ndax gën am na lu ñu gën a bëgg ceebu jën amu déedéet ceebu jën sénégalais bu ko bëggoon am na ah hmm? bëriwul de kon ñooñu ñooy yore añ yaag reer yaag yooyu danañ ko pareel ba nga xam ne buñ ñëwee ñu xam ne ñoom itam jël nañu jokk buum gi nga xam ne moom la yàlla waxoon ne euh, waxtasimu bi xablillahi jamian yéen ñépp na jàpp ci buum ak yàlla noonu lañ koy toppee muqaddam ya ca fuuta ya ca bawal ya ca siñi ya ca saalum ya ca ndukkumaan ya ca màndaax ya ca wàllaadex te mooy waalo ak ripp ak ñombaato ak lageem ak euh, jingi jingili waaw jingili waaw bu ngoog jingili defe naa bu doon am capital keere lay doon waaw kay kon nag bëgguñu ñuy fàtte benn muqaddam lu dul muqaddam ba nga xam ne njabootam ñoo ko fàtte ba nu leen dara waaw kon nag tey dañoo guddee ubbi te guddee ubbi gi

ku ko dox ak say dàll dàll yee fay xotte fi ñu dafa sori métti te xam ngeen ne mbeddi Sénégal mbeddi Sénégal la la ci ëpp ay xar-xar la ak ki nga wax te oto yi seen pneu yu baax lañ lay réngi réngi ñu xam ne ñun itam ñi ñu jaral lépp ñu nit nañ leen may noppalu ñu may leen ñu noppalu ko mos as nelaw fu du tuuti surtout que sedd bi fay nelawloo ñu jóge ci tàngaay te ren sax seddu daaw moo seddoon daaw ñu bari bari kar kar kar kar rek lañ doon def rawatina mag ñi ok jigéen ñoo amuñ problème ndax ñoom boor bu ne dañ koy muur ci ko ba nga xam ne ngelaw li doo am xam jaar waaye ba tey ñu ne nañ ren mën nañoo tàmbali ci waxta sud si suddu te waxtu woowu moom quatre heures du matin moom la yàlla tànnaloon yonant bi pour mu gisee moom moo tax mu ne subhaanalladi asra bi abdihi laylan laylan mooy ci diggu guddi bu nekkoon ci boppu guddi gi dafay ne fi layl waaye laylan bu ñu la koy jàngal ci balaaxa dañu ne laylatul laylaa ay guddi gu jaaw mooy quatre heures du matin ndax itam mënoo wax ay nit ñoo xam ne reeraguñ nga leen mi ñuy jot na kaay leen ñu gàmmoo te fekk ñu ngi xiif te sedd nag ndekete dafa yokk xiif looloo tax ñu def ko waaye yoon wi ma leen wax mooy xali man sama baay de wax na ma ne ma siyaare bi ma leen baxee di ko def ñetti fan na ci yokk loo mën waaye dana demi ba nekk weer te léegi booy seet màggal Tuubaa la ca weer mooy lu ca gën tuuti am na ñoo xam ne dañuy dem di fa kaajee te mooy jënd ka jaay ba diggante bañ demee ba ñibb si day ma juróom benn weer ndax manaafi alahum ji rek ji ci aj jaamu yàlla jëriñu yéen a ngi ni tiwaawoon xam ngeen ne fi ñuy ubbee bordo bi ak fa ñuy paree gàmmu gi fukki fan ak ñaar Medina ngi ni mhm. ñoom bu ñu ubbee burdu bi danañ gàmmu ba gàmmu waaw loolu du ñaar fukki fan ah? waaye kon xalifa yelloowul juróom juróom-ñaari ma leen di laaj kon nag ku bokk ci xalifa na nga préparé boo yeggagul ci la yaay na ashrit nam nga au moins nga nga egg ci sa bata yow yaa ngi nii xéewal xaw ma nu naan euh, kii nu koy waxee waaye euh, xam nga porosé lu mu nekk ci tubaab mooy ay gént gént gént naa am kër gu rafet loolu mooy porosé ñu porose porosé bi porosé bi porosé kër googa naa ko mosaam loolu mooy porosé de ah man du ma contre nit ngir jëmmam waaye xool est nit kuy ut réew ñëw fii ñu géewoon na ci Kër Masaar attaqué wu Macky Sall nga fekk amee na simple citoyen nga ne moom ngay attaqué waaw boo ko attaqué looy xam may laajte rek looy xam est loolu sax bokk na ci mu laaj waaye yow da ngaa ragal ragal Macky Sall booy tudd lu bëri nga tudd lu Macky booy tudd ngeem nga tudd lu Macky loo jotee am nañu am président du ministre du ambassadeur du gouverneur du commissaire du directeur waaye ba ko jàmm waaye da ñaaw di réew mi yow koo joxe ñu am nañu loo jotee am yow amal ñes boo ñëwoon faagaakaloo faagaalakal ko sax looy xam waaye doo xam dara koo xam ne nag ndax olof dañ daan wax ne ku bëgg foo joxoñ jant fenk del joxoñ fenk moom nag au lieu joxoñ fenk euh, nguur gi di fenkee moom dafa joxoñ lu dul dara jëlewu ca dara bal ba mu tuddee tubéy jàmbur ñu tuumaal ko ci tubéyam jël ko tëj ko te ba tey ji ñu ngi ne tubéy yi moo tax ñu téye ko duñ ko baax loote loo tee man sax d'accord naa tudd sa tubéy ndéem jote nañ dara ah waaye ki jotewu leen dara nguur nga wax ne moo ngay moo ngay wut mënoo ko jëlee ci moom ndax xam yorut ko man de bañ ma ko laajee man de li ma sama baay jàngaloon mooy xar kanam bu kaare yàlla faloon xar kanam fay niru jant wala mu niru weer wala mu niru biddiw waaye borom xam kanam bu kaare utal ko mbaxanaam bo ne kaare ba ko mu defe hmm? maanaam gaañ yi seetal boobu affaire yow ñemeew tudd Macky Sall bësu koo ñemee tudd am nañ la tudd am nañ la ñu la tudd ay ca tuddal nit ki waaw léegi damay laajte ba mu jógee nii nit ñi gàtt sa gàtt sa lakk nañ fi ñaari junne oto oto Macky Sall bokk na may laajte du ñu ngi lakk kaar yi kaar yi Macky Sall daa ay doom bu ñuy jàng ci kaar yi du ñuy dugg ñi mu àndal ñoom ñooy lakk kaar yi nga xam ne buñ ci dugg duñ liggéey wala seen doom yi duñ jàngi waaye seen la ngeen fu ñu jaarale ñoom wàll boogu ñu dëkkee ci réew mi ñoom bu ñuy xañ ñànk nga xamul dara amul jën amul yàpp amul kecax amul géej amul sax yàpp wu nëbb moom la lekk ci lekk ak waaye ñaan ngeen yàlla Sénégal dem ba yow ku sa jabar rëgalal ñànk na ngi kese moom muy bëgg dundee nit ki lim gën a bëgg di ko lekk fay foog na yow loolu nga bëgg fay foog na ñëpp loolu lañ bëgg bëggu bëggu ñànk ta ngi kese cere kese ku ko xam ñu baxee la yàlla yàllay kese sax ku ko xam ñu baxee la ko yàlla fay saf yonent yonent saf